خيتك وعلى النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا جاي خسرنا من سمع فدل أتينا من سفا السلام yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara yéen ñi nga xam ni yéenay seetaan chaîne bii di Tivaouane 24 TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax waaye di leen déwénati ci weer bi euh, di jiital ci nuyoo bi sax alxalifa Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na yàlla guddal fanam may ko njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick yëpp waaye leen ci weer bi di leen baal wàq waaye tamit di leen baal di ñaan yàlla na yàlla boole ñu baal. yàgg koo fekkee at yu bëree bëri waaye yàlla nangul ñu sunu koor nangul leen seen koor ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di leen wax kullu aamin wa antum bi xayri fa tabarakallahu yàlla na yàlla nangul ñu nangul leen euh, koor gii nga xam ne ñu ngi ci dugg yàlla nañ ci dugg ak bismillahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamin mboolem naafile yeeg euh, jaamu yàlla yi ñu ci def yëpp yàlla na ko yàlla nangul ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen di jaarat baax yéen ñi nga xam ni yéenay saxo di seetaan chaîne bii di Tivaouane 24 TV di leen baal wax rek lépp li nga xamante ni jàll na ci chaîne bi cam am lenn loo xamante ni naqari na leen ci rek ñu ngi koy jégluwaat bu baax a baax euh, di xam ni ñun dañuy jéem rek waaye euh, fa tabaarakallaahu yéen yéen a ñuy dooleel ba tax na euh, njukkal li ak cant gi yéen lañ koy bàyyee fa tabaarakallaahu ginnaaw bi nga xam ni chaîne bi nga xam ne moo di Tivaouane 24 TV atteindre na li nga xam ni moo di cent mille abonnés loolu kenn mayu ko ku dul yéen ñi nga xam ni ay seetaan di aimer vidéo yi waaye tamit di ko partager ba tax fépp faay toll lekk di gis li nga xam ne moo di vidéo yi kon nag yéen ñooñu yéen a yeyoo jaajëf euh, fa tabaarakallaahu kon daal ñu ngi leen di santaat baax leen gërëm leen wax ni Tivaouane 24 TV lépp ñëpp la kon nag lu ne ku nee ngi ci yow mi am sa programme ak nu mu mënti toll wooteel ci numéro service commercial Tivaouane 24 TV ñu ku fii sa programme ci ni nga ko bëggee ci njëg yu xéwale numéro yaa ngi noonu numéro boobu am na whatsapp 77 043 23 79 jërë ngeen jëf vingt 24 yi fas yéene ànd ak yéen ci weeru koor yi nga xam ne mu leen dugg nii conférence yeeg yëpp yi nga xamante ni ay programme la yoo xam ne mi nga am ci biir koor gi rek bu leen sappee xaar leen ko fii ci Tivaouane 24 TV wooy leen di abonné activé colos bi ndax vidéo bu ñu ngeen mën ko gaaw jot جرين دفتي عن بعدين. برم دار جبايم نما جزام لا يا شيخي ما على يحمينه شم الله لنا فوزون لنا عنم بجهمي مار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 suñu loxo yi ca kaw ala nabi wa alayhim ajmaina salaama rabbina